dikkati naa ak lu mën a am daal sang réew mi dafa jot libération yéeni kaay na ma nit ñaa ngi faatu ci anam yoo xam ne doy na waar lool ab teeg nañ boo xam ne moo daal di màbb ci ay nit si ab site boo xam ne dañ fay daal di génnee or te bu clandestin la de nekk ci département bu Saraya yéeni kaay bi dama mbir maa ngi amee ci ci Sahel surtout ab galerie boo xam ne dafa màbb alxamis gii ci benn groupe bu soxna boo xam ne ña nga bàyyeekoo woon ci dëkk bu ñuy woowee wartoxati ñoom nag la leen fa andi woon du lenn lu dul benn benn or yu sew ni moo fa nekkoon boppam ñu daal di koy jël for ko yóbbu ko jaay ko man ci dundal seenu njaboot libération ne ma nii la ñu tudd dala jàllo ñaar fukkat ak juróom-ñett laa moon faatu na lemaane si saxo ñeent laa moon faatu na faatu si soxo fukkat ak juróom-ñett la amoon faatu na ñoom ñépp nag suuf saa màbb seen kaw daal di leen di muur yàgguñu fa waaye faatu nañu secouriste si sulli nañu leer waaye fekk nañ njombe ki daal di am ñu ñàkk seenu bakkan te yéen kaay bi ne ma jeexul de ndax Mamadou Dan Fakha mii ni ki démb la daal di faatu ci même condition fanweeri at la amoon lu ni mel ko faat ci beneen site boo xam ni mi ngi am ci dëkk bu ñuy woowee Senzala ci commune bu Bambou turbine yéen kaay ne ma boobu day réew mi ñenn ñaa ngi fi am gàcce bay muuru Mamadou Lamine Diallo ci la bokk nee na bi nga xam ne moom ma Macky Sall moom la séq ak Marine Le Pen day gàcceeg Sénégal la Marine Le Pen du koo xam ni mees na nangoog moom mbagg Massamba kan moo ko xamle Massamba kan ni lenn coow li coow li mooy président Macky Sall ku mu la ngool ngir ñetteel bi mandat la bëgg Mimi Touré ak waa FRAPP France dégage ci Walf Quotidien dara président Macky Sall day bu defee lii gàcceel nanu man Mimi mi moom ñemewu ma sax xalaat ne moom président Macky Sall jëf ji la def deful lii waaye bu ko defee dee yàq na ko bu dee ab la bëgg yàq na ko Massamba Kane ne président ki Sall allié la bëgg ngir ñetteel bi mandat Sud Quotidien ne saa si tembe day lu taxaw ci kanam mu faxas lam waxoon ne day nal opposition bi moom Sall ngaari lam tooro burge de ma nga ca ma nga ca tànku fàqat ndengeñ yëkki ba biir weex Sonko teg ci suuf yéene kaay bi ne ma Sall ngaari benn projet la am saa si tembe de mooy gàntal bu Ousmane Sonko gaay Ousmane Sonko ci 24 heures yéene kaay ko ba tàyyi moom Ousmane Sonko ci boppam atte boobee ñu ko woo da ca dul dem faf Babacar Ndiaye bu jeunesse patriotique ne moom président Macky Sall la mu bëgg moom moo di daar daar ab procès ngir nag jël ab daan teg ci ndoddu Ousmane Sonko du mën a bokk ci l'élection ñun ñëpp nag takku nan ba mel ni say saxaw fas yéene jaamarloo ak président Macky Sall ak képp koo xam ni fas nga yéene faagaagal Ousmane Sonko ak projet bi saa si téemé nag ne moom président Ousmane Sonko mooy sunu yitte képp ku ko bëgg laal daal sunu kaw fi mu toll nii lenn de sewunu lu résister l'indépendant yéene kaay lu leen résister résister bu leen ni moom président Macky Sall day dalal na Marine Le ca palais ba daal saaga waa diaspora bi diaspora ba nga xam ne Marine Le ak baayam wan leen lu ne wax leen lu ne ñu déggloo leen lu ne yéenekaay bi ne moom Marine Le Pen moo président Macky Sall dalal ci palais ba bu leen ko fàtte Massamba ne troisième mandat mooy sababu président Macky Sall Sud Quotidien ne moo taxit mu ngi ci tànk Sonko Babacar a am am na la des mooy wuy ji te day am l'enquête quotidien ne boobu daal sàll ngaaree ngay diil ab diil bu yees diggante moom ak États-Unis le soleil yéen a kaane diggante Afrique ak états day la ñuy waxtaanee Janet Janet Yellen mi ngi Sénégal secrétaire au trésor bu États-Unis ñëw ci réew mi le ko quotidien le quotidien ne américain yi kay raayi Sénégal yi lañ bëgg mu taxawati jub kocc diggante Dakar ak Bamako lañ bëgg taxawal les éco yéen a na ma li taxaw mooy diggante Amadou Ba ak doom ja Xaadim Ba Amadou daal dinay wuli Xaadim xeexoo ba doxoon seen diggante cour d'appel moom Amadou Ba moo ca am ndam registre de commerce ba sax dindi nañ turam def ca bu baay ba tribune yéen kaay ne ma conseil constitutionnel it la ñu dugaloon moom Mimi Touré Guy Marius Sagna ci rapport d'enquête bu cour des comptes ba daal dinañ koy tàbbal géej vox populi ne ma la ñu bëggoon amul ndax sept sages ci boppam ñoo ni document bii recevable boobu l'observateur di ma xamal ne kër Moustapha Niass day ma ngay baxee nu ne waa AFP ña ngay teesante Alioune Sarr dafa daal di budee gars yi ko menacé ne dañ koy sanctionné Niass woote na rang bi la journée boobu ca parti socialiste ña koy weddi Abdoulaye Wilane Aminata Mbengue Ndiaye bu Haut Conseil collectivité territoriale na ñetteel bi mandat waaw ñoom weer ya joxe nañ fa vert vox populi ne ma boobu dey l'armée bi ma ngay def ay ratissage ci zone 4 ba ay opération ñu amal ko ca Casamance l'observateur ne balaa ngay daane xamal ni ci diiwaanu nguur tës bu rëy moo fa am coroom la daal di faat jël néew ba daal di sànni ca àll ba moom ci boppam mu daal di daw làqu ji bi ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm te yendoog jàmm Touré seen ak sàkku teef juróom-ñaari sages yu dañ ne nag mënuñu ko nangu Euh, ndax nag ñoom ci boppam gannaaw ba ñu ko gëstoo saytu ko ñoom lañu doon sàkku jëm ci rapportu euh, manaam cour de comptes bi ci fond force Covid 19 bi ngir ak leeral am si waaye it ak xajaat la am ci si diggante pouvoir exécutif vers législatif bi loolee ci boppam dañu ko déclaré irrecevable mu nekkoon nag euh, ci kanamuk Mamadou baajo Camara xam ngeen ne moom mooy njiit la Seydou Nourou Tall Mouhamadou Diawara Abdoulaye Silla ak nag Aminata Ly Ndiaye Youssouf Diaw Mbodj ak Awa Dieye ak ka leen doon assisté moo di maître Ousmane Ba ñoom ñëpp ñu tënku lu nu mel daal mënuñu ko nangu Birahim Ndiaye Touré. dañ jàpp ni dafa irrecevable muy conseil constitutionnel waaye man jàpp naa ni c'est légitime ñi nga xam ni ñoom ñooy député assemblée nationale ne ni ay la yoon nous sommes le pouvoir législatif ñun ay député lañu ñun suñu rôle en tant que député donc pouvoir législatif mooy saytu exécutif na muy na muy doxalee la mu def na ko koy yoree na mu ko ñàkkee yore la mu ci fas yi ne ak parce que ñun ñoo koy jox ñun loi yi mhm. tëgg ko ñun législatif ñu ñoo koy ñu ñoo koy voté budget moom exécutif ñun législatif ñoom ñoo war kon saytu moom exécutif lan lay liggéeyal mu jàpp ni ñoom ñu jàpp euh, plutôt muy euh, ñaari député Guy Marius Sagna ak Aminata Touré que tey yoon la ñuy coow coowal Covid 19 ak gestion wu li nga xam ne moom mooy fonds euh, de résilience boobu ñu joxe woon euh, ne nangami milliards la coow li ne cour ba ñi nga xam ni ñoom ñooy waa cour des comptes def ci ab rapport public annuel boo xam ne génne nañ ko saytu lu jëm ci wàllug nañu joree nañu yoree xaalis bi ñi nga xam ne moom lañ leen dénkoon ci lu jëm ci wàllug euh, lii di xeex mbas mi ak jàppale nit ci jamonoy mbas mi ñoom ñu ne nag ay la ñii dañu ñëw wax ñu la indi coow li mooy lan te muy ñan muy gouvernement bi premier ministre muy lu ñu wooyee euh, question euh, d'actualité ak question orale yoo xam ni euh, muy premier ministre wala yenn ci ay ministre dañoo war a ñëw toog ci kanamu assemblée nationale di maanaam kon exécutif bi war a ñëw toog jàkkaarloog législative bi pour tontu ko mais au-delà de li ñu def saisine bi conseil constitutionnel ne loolu mënumoo ci d'accord irrecevable ak yooyu mais Euh, Mambey beneen débat war nañu ko poser à l' assemblée nationale ci jamonoy euh, Mahammed Boun Abdallah Dionne la ñu waxoon mooy du ñu toog ñetti weer boo xamee ni premier ministre. Mhm. wala membre gouvernement. du ñëw taxaw assemblée nationale ci kanam député yi. ngir indi ay leeral ci question bu mën a doon euh, ci loo xamee ni ay faits société wala lu jëm ci wàllu actualité wala lu jëm ci wàllu budget ci lu jëm ci wàllu finance ak lu mu mën a doon. Mm-hmm. dañ la naan ni tey am na lu ñu woowee commission yu am ci biir assemblée yoo xam ne ni ñu ngi déglu ay ministre wala ñu ngi tontu ko laaj ay ministres mais est-ce que tey assemblée nationale bi ñu yore muy législature bii muy législature yi ko jiitu ak yi na yara nar a ñëw am nañu justement cette liberté en tant que député dindi déjà la casquette de député de diw wala député de tel parti mais doon ay député du peuple ba mën a am affirmer doole. wala taxawaay boo xamee ne assemblée nationale war na ko am di pouvoir législatif war na ko am ci kanamu pouvoir exécutif. Hmm. parce que ñeenti pouvoir yi législatif exécutif judiciaire dañu ne séparation de pouvoir am na mais dañuy complété complété wu ci yenn ci ay ay ay fanam ay ay euh, anam est-ce que loolu euh, waruñu ko dëggaat ci suñu. wallu wàllug doxalinu assemblée nationale ba nga xamee ni législative yi dina amaat doole bu mu waroon am ci kanamu exécutif bi. waaw euh, Mamadou Fofana ndax lii du joxe raison ñi nga xam ne dañ wax ne euh, mbirum fonds force Covid 19 bii de du mujj fenn. oui euh, je crois ñoom d' abord dañu usé euh, ci les sax ay voies de recours mais ci li ñu jàpp ne ne procédure bu normale la par rapport ak tey li nga xam ne ñoo ngi koy sàkku Mm-hmm. ay député nañ dañoo war a jouer pleinement leur rôle de représentant du peuple lii nañuy xaar ci ñoom mu di ne bu amee ay question yoo xam te ne nii d'actualité yoo xam ne ni dafa intéressé wala dafa am impact boo xam te ne nii tey li ëpp ci sénégalais yi la gën a intéressé mais buñ ci amee ay jeexi jaaxa ñu war ko teg ca fële ca assemblée nationale woo les concernés pour ñu waxtaan si pour ñu indi ci ay génn yu leer def ay demande ñu def ci ay kii na tudd ay explication parce que aussi le député amul kenn koo xamante ne nii mënula déglu loolu seeni prérogative la bokk loolu yoon moom moo leen ko may constitution moo leen may doole boobu muy ministre di directeur généraux di ku mu mënti doon laal la wax mambay député am na droit déglu ko parce que la ñu yor mbirum askan wi la la ñuy doxal mbirum askan wi la moomuñu ko te en soit la nga xam ne moom mooy liggéeyu assemblée nationale moom mooy contrôler l'action du gouvernement et justement dans ce rapport de, de de la Cour des comptes mais c'est des membres du gouvernement ak des démembrements de l'État ñoom ci seen bopp nañ duut baaraamu tuuma ci ne woy xaalis dafa dem te tey loolu waroon na gën a tax ñu gaawal mbir yi quand des deux ministres muy Abdou Karim Fofana ak ki nga xam ne moom mooy Mouhamadou Moustapha Ba Bousquier ñoom ba ñu ñëw ils ont reconnu am na six milliards yoo xam ne nee na may bien ko nous sax à notre niveau dañ jàpp na ne dañoo sous-estimer l'argent bi nga xam te ne nii dem na dans des conditions yoo xam te ne nii frauduleuses mais tey kon yoon la ñoom ci seen bopp lii ñu bëgg mu di question d'actualité bi que la présidence de l'Assemblée nationale instruire ko nu mu gën a gaawee les ministres n'ont qu'à venir et s'expliquer devant tout le monde ñu déglu leen bu ko defee nag su boobaa dinañ gën a mën a am leeraange par rapport ak li nga xam ne ñu ngi leen koy toppee maintenant peut-être beneen bi nga xam ne dinaa te attirer seen attention moo di ne question d'actualité yuy am yu bëri boo xoolee dans le passé pratiquement du yàgg mais ñoom la ñu bëgg mooy mu nekk débat boo xam ne ne day tàmbalee neuf heures ba minuit on va discuter tout de ces questions là ces détournements supposés yi nga xam ne am na ci mbir yi Cour des lu mu ci wax donc loolu yëpp nekk na loo xam te ne nii je crois nañ ko gën a yaatal ci ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, euh, euh, xam naa ne les membres de l'opposition lay doon tey amul lu ñu mënut a def ak cette nouvelle configuration de l'Assemblée nationale donc loolu dafa am solo moment la pour ñu mën a régler lu bëri moment la pour ñu mën a jubbanti lu bëri moment la également pour ñu mën a réconcilier wu véritablement ak li nga xam te ne nii moom mooy les attentes des populations. nga xam Sénégal ñu daal di koy ganale ñu bëri nee nañ nag waru foon dikk waaye président Macky koo dalal dalal lu bari ñu ànd Cheikh la ñu ŋànk wàllu communication bu pare nag daal bi nga xam ne njiitu réew mi président de la république Macky Sall nekk président en exercice bu UA nag daal di dalal ki nga xam ne mooy Marine Le Pen jiite ku jege foofee ci diwaanu France cellule communication boobu nag moo ne ci njëlbeen nag xamle woon nañu amul benn daje bu nga xamante nag jot nañ koo lëkkale diggante ñaari homme d'état yooyu lee ci mujjantal ba nag mu mel ni yëf fii dafa wëlbatiku ba njiitu réew mi nag daal di daalal ki nga xam ne mooy Marine Le Pen ci makkaanu palais de la République ndaje bu ni mel nag du benn yoon bi nga xam ne nag siiwal nañ ko gannaaw coow li nga xamante nag moo ko jiitu ci ñenn ci opinion sénégalaise mi jàpp ni rek waruñu ko dalal gannaaw taxawaay bi nga xam ne amee na ko ci racisme waaye mësta nangu lu jëm ci wàllu immigration rawatina immigration clandestine ci wàllu googu sax Boubacar di président Horizon Sans Frontières moo njëkk ëkk ay kàddu di ñaawlu boobu les visites jàpp ni provocation lay gën di niro suñuy réew rawatina Afrique mu mel ni audience bu ne mel ni dana juraat coow ci langu politique bi gannaaw ci ñenn ci ku jéggi àndu ñoon ci boobule dalal te du benn photo bu nga xamante ne nag siiwal nañ ko rawatina sax ay image yi nga xamante ni jot nañ ko jàllale ci télévision nationale bu Sénégal comme nañu ko baaxoo di def saa su ni Alassane Balde wàllum napp mi la ñuy waxtaanee ak nag tontuk jëwriñ ñu dénk wàllum napp mi di Pape Sagna Mbaye jëmale ko ci Cheikh Yérim Seck ak téeréem bi nga xam ne da si dëxëñ nañu daan joxe licence de pêche yi ak nag la mu yàqee sunu géej gi loole ci boppam tontu na ko moom Pape Sagna Mbaye dafa xam ne ne kon Cheikh Yérim Seck mi la muy wax dara xamu ci dara dañ ko rek expliqué te la mu ci nettali maanaam ak la am yàlla xiyaal yi ñu teelu ko moom Pape Sagna Mbaye ak Pierre Claver Pouye. xam nga ku ñëw bind sa livre respecté naa ñëpp. mais looy waxta xamuloo ko boo noppee kooku wax du ko xam parce que ñëw dugg ci loo xam ne lii enquete da nga da nga def enquête ñëwuloo ministère da nga def enquête demoo ci acteurs yi da nga laaj ñoo xam ne foog nga ñoo ngi ci biir activité bi ñu bind jox la nga wax loo xam ne lii ah mën nga mën nga attaquer système mais waroo attaque nit ki. parce que ñamu ci tudd ñëpp dañuy liggéey ci biir système kon système la ñuy wax attaque am na loo xam ne lii duma ci tontu parce que enquête dëgg la am na ay journalistes d'investigation mais wax fa dëgg neex yàlla day investigation boobu egsiwul ci biir ministère bi. Birame ngoog tontu Pape Sagna mbay ci euh, licence de pêche yi euh, jëmale ko ci Cheikh Yérim Seck mi ko bind ci téere bi. waaw léegi euh, Cheikh Yérim dafa am lu mu bind. moom ba muy tàmbale ci bindam dafa ne ni defuma mbirum euh, xëccoo wala euh, dégg naa wala laaj naa euh, wax nañ ma la mu def mooy journalisme d'investigation moom la wax ne ni loolu la def léegi moom dafa jël ay mbir teg ministère yeeg direction yeeg ku ci nekk mu am ñu mu ci tudd ci wàllu woowu kii tontu na di Pape Sagna Mbaye ci ci wàllu pêche bi Euh, maintenant euh, il faudrait que ku mel ni député moo ñu mën a wax leeral ñu effectivement mm-hmm. si les propos d'un tel ou d'un ban moo ci bi ci bi ci bi ci ci dëggu mais beneen coow am na ci boo xamee ne xam naa ñu dinañu ko feeñal aussi mm-hmm. mooy la mu wax ci wàllu Sénélec ci lu jëm ci wàllu gestion boobu directeur u Sénélec wala ministre bi ñu dénk wàllu énergie xam naa dinañ ci tontu mais xam nga lan moo ci feeñ ci lii may dégg nii yëpp mm-hmm. mooy ce livre de Cheikh i Seck finalement bah euh, ndax li mu ci wax dëgg la wala du dëgg ndax baax na wala baaxul waaye de bout en bout li ma ci gis mooy ni pratiquement passage bu ne am na ku ciy tontu soit de l'opposition ou du parti au pouvoir wala koo xamee ni da nga diriger lenn wala koo xamee ni euh, dafa am loo xam ne dañ la kë dénkoon euh, donc euh, finalement nañ ko jël teg ko ci def ci débat ce serait même bien de le décortiquer c'est pas pour Euh, ne ni finalement moom mooy star bi jamono ji mais son livre est devenu un peu la star du moment. Mhm. alors Mamadou le fait téere bi euh, euh, interrogation yi ñu ci def wala nag rek yi ñu ci def ñu bëri di tontu rawatina ci nguur gi di andi ay leeral loolu day jox valeur peut-être benn benn en benn solo si nga xam ne téere bi am na. xam nga benn Cheikh Yérim Seck. c' est pas n'importe qui mhm. loolu il faut mu leer aussi xam nga Sénégal dañuy jël nit des fois par rapport ak yëfu loo xam ne ne ci matadi doomu aadama la bokk mhm. ñu bëgg la jël dugal la ci jàppee ne la woy tekki woo dara diaboliser la mais nit ki fraskam wala ay yëfu matadeem yoo xam te ne nii yàlla bindee ko loolu noonu parce que tamit xam nga wax ji wax ji moo di lan mais mambay ñun ñii ñëpp ku ci nekk ku ne xaj na ne yaa ngi def mhm. wala yaa ngi ci walla munoo ne man ba ma juddoo ba fu ma toll nii def naa loo xam te nii lépp dafa neex yàlla mhm. attention yeex Cheikh Yérim Seck production intellectuelle la def tuddee ko livre livre mooy lan mais fii ak cinquante ans livre bi dañ koy lire. Mhm. fi ak cent ans livre bi dañ koy lire. fii ak ay siècle livre bi dafay nekk dafa am version PDF cela veut dire que kon mi ngi si biir internet livre bi nekk loo xam te ne nii document physique la waaw mais yéeg Cheikh Yérim Seck yow foog nga ne ak ni mu nekkee journaliste bu mag. ñun ñëpp ñu reconnaître ko ci métier bi kon nuñ ko nangulee Pape Alé Niang nangul ko keneen ak keneen. Mm-hmm. nangul ko suñu baay ji euh, euh, Jaaju Touré nangul ko keneen ak keneen. mais yéen foog ngeen ne see Yérim seet dina jël di bind noonu rek parce que dafa am envie pour diffamer les gens wala dafa am envie pour bindal nit ñi loo xam ne du dëgg. Mm. sa waay wàllum licence de pêche yi balaa moom mu koy bind ñun ñëpp. on a constaté waa Greenpeace waa Forum Civil taxaw nañ fi génn fi ay ay licence yoo xam te nii récemment nañ ko signé récemment ci boppam nañu signé licence yooyu noonu uh-huh. ngeen bëgg taxaw fii ne way la muy wax li xamu ko Cheikh Yérim Seck dina jël di bind ci licence de pêche yi te amu ci dara lu ko leer ak des preuves yoo xam te ne nii nee naa la fii au grand jour la ko gars yi teg fii bëccëg ndar kam ñuy gis licence yi Alioune Ndoye moo nekkoon ministre bañ koo war laajee mu ne man musuma signé licence deux jours xaw ma trois nañ ko tegal licence bu mu signé moom ci boppam. Hmm. ñu ne léegi cette histoire de licence de pêche là amul c' est pas une nébuleuse c' bien le c' est bel bien une nébuleuse parce que tey la mu jural suñu nappkat yi ab óo demal goxu demal ndar demal la petite côte soxna yu ci bëri ñàkk nañ seen borom kër ñu ngi leen fa bàyyi ak njaboot bu sew lan moo ko waral parce que dañ doon dem di napp ji tey mënatuñ napp licence de peche yi ñoo leen sonal ñi ngi jël màngaan gi di dem di faatu ci géej gi lan moo leen waral lool parce que benn benn benn pañe jën sax mënuñu ko am. Mm. mais sawaay kon bu leen taxaw fii naan ay Cheikh Yérim Seck la mu wax la mu xam nga luy wax bu fekkee la mu wax du dëgg génn leen preuve yi wane ne Cheikh Yérim Seck la mu wax du dëgg mais taxaw pour weddi noonu rek oralement nga ne way la mu wax léegi loolu ñàngam ak nàngam ñun soxlawuñu loolu. wàllum pêche bi mënuñu wax a wax a wax a wax ba napp gi lu jëm ci wàllum napp gi Aminata Mbengue Ndiaye jaar na fa mosu ci indi leeral te pourtant dañ ko doon wax kii di Omar Gueye jaar na fa. dara mosu ci wax Alioune Ndoye jaar na fa. heure bu ñu leen waxee publier leen ñan ñoo am licence de pêche mosuñu ko def. gouvernement Sénégal mosul génne licence de pêche yi nga xam ne mais signal nañ ko ñun. te tey ñu ngi dund phénomène ak jafe-jafe boo xam ne dara jurul luñ ko lu dul licence de pêche yi. ñu nga xam ne ñooy napp suñu géej gi. yéen bëgg a taxaw fii waaye caaxaan baaxul waay. jaajëf euh, Birahim. waaw euh, am naa altine may euh, fàttali nag. yéen a ngi seen compétition. waaw bon compétition kii la lu ñuy wooyee pistolet parce que dañu nekk xam nga ci maanaam. li muy amee ci football ñu ne la ñu ngi ci euh, euh, compétition wu euh, coupe du Sénégal ak yooyu noonu la amee également ci li nga xam ni moom mooy ci ci wàllu fédération. Mhm. bu tiir ak ak chasse. kon tey muy compétition boo xamee ni ñu ngi koy amal fale ca camp Abdou Diassé. sera à à dix heures à à partir de quatorze heures. muy li ñuy wooyee air comprimé. ci dix la doon air comprimé nag pistolet yooyu. Euh, xeetu pistolet yoo xam ne ni moom lañuy de moom ngay gis ci compétition internationale yi ñu koy utiliser donc c'est c'est un sport euh, ci wàll woowu bon en tout cas bonne chance aux, aux membres du club euh, Kew surtout à notre président Babacar Gueye xam naa ni moom ci bokk ci compétition waaw démb nag mu doon entraîné wu nag entraînement boo xamee ni <laughs> xam naa ni comme jàkkaar lool ci yeneen club yi xam naa ni Tony Diandi dina ci xuloog man parce que ñoom waa ADT ak yooyu oh. dañu xaw a Euh, mer tuuti waaye tamit ci lañ bokk ci compétition fédérale boobu. très waaye waa kew ñoo nar a jël pay nag. li njëkk na Maroc liggéey après Jean Do ah. Jean euh, moom euh, ce sont des éléments de de la brigade d'intervention polyvalente waa PIP yëpp nag. yaa muy capitaine yeeg lieutenant yeeg ñi fa nekk ñëpp. le le le le commissaire le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle. Euh, nu mu tuddati sax waa ji te mu yor direction des élections des opérations électorales oui euh, commissaire Sarr commissaire Sarr dina dina dina xam dina xàmmee boppam ñu koy nuyu bu baax a baax ci taxawaay beeg surtout ndimbal géeg jàppale géeg lépp vraiment jaajëf waay euh, Mamadou Fofana kon à lundi incha allah. incha allah ayca laata ñuy jàll ak euh, Pape Mantembou xam ne ne kon grève bu ko transporteurs yi standard ñoom acteur yu secteur bi nee nañu seen grève dañu koy wéyal tey jii janoo la ñu wooteex taskatu euh, xibaar yi ca Fatick am na ñu génnoon doon xam ne ne kon président Macky Sall def fa dara. gannaaw ba mu nekkee ci nguur gi ba léegi waaye loolee am na ñeneen ñu ko génne di ay ndaw boo ko Cheikh Kanté nee nañu la ñuy wax dara musi ndax nag Fatick tey la gën a développé ñu teewlu say kàddu yu tukkee ci Abdourahmane Mbeng kenn ci responsable ndaw ya ñëpp xam na ni. fii ci département Fatick euh, yónni woon na équipe ñu dem ci ñeenti arrondissement yi nga xamante ne ñoo am fii ci Fatick ñu waxtaan xool dëkk bu ne cest à diir commune bu ne wax lan mooy ay priorité en présence effectivement de leur maire biñ ko listé aussi buñ bëggee def rek li ñuy wax synthèse ci biir loolu jàpp nañ ne compétence yi nga xamante ne état da ko jéebal collectivité yi muy par exemple mairie wala conseil départemental tey programme boobu noonu dina jël en compte yooyu yëpp bokk na ci wàllum faju parce que ñëpp xam nañ ne faju c'est une compétence transférée et fi Fatick bi ñu nekk dañuy dañoo gis ne suñu hôpital bii bien vrai que yàlla ak président Macky moo tax mu tijji en deux mille 2012 mais tey laaj na pour ñu ñongalaat suñu plateau médical. ñu dem sa ndar ak euh, jumaay bayal tëng géej noonu la ñu ko tuddee ñu gënoon koo xam ci jumaay tukkuleur foofee sa ndar yàgg na lool nag màggetoon lool euh, daanaka nag dees nañ door liggéey ba ngir jagalaat ko ndax askan wa ñoo booleex la ñu am ak ña sa jàpp muy bonne volonté yi nee ñu gannaaw ba lépp yemb na war na jege juróom fukki million kon nag liggéey ba dees naka door ñu wutali sa ndar fekk fa Babacar Niang Les populations et autres bonnes volontés ont répondu favorablement à l'appel de l'imam Baïfal pour avoir largement contribué pour le démarrage des travaux de réhabilitation de la mosquée Bayal Tendiguen. Tous les travaux de la rénovation ñu jéggalu ci kalamay nasaraan gi wàllum diina ji ndajam CRD la lañu wootee ci ziara annuelle bu euh, Jamal euh, ñaar fukki fan ñeent jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci février lay doon ndajam waxtaan woon ak démb la woon sa Kaffrine mu nekkoon ci teewaayu ko gouverneur bu euh, kafrin naka noonu it ña nga xam ne ñooy borom Jamal njaboot ga ci boppam lépp lu nga xam ne nag nee ñu buñ ko jëlee ni ay matukaay ziar ga dana aw ci yoon nee nañ daañ ko jël ñu ànd Seex Alioune ay leeral ci CRD bi nga xamante ne gouverneur bu région de Kaffrine moo ko jiite. doon def CRD wu siyaare jaamal waaye CRD bu am solo la ndax lépp loo xam ne ay doléance la xalifa bi indi ko jox ko président commission scientifique bi dëgg-dëgg am nañ ci satisfaction boo xam ne euh, xalifa bi kontaan na ci lool ndax ku ne xam ne ne jaamal kër gu mag la sëriñ jaamal liggéey nañ ci réew mi loo xam ne bësam Euh, ku ne war na ci am taxawaay waaye rawatina gouvernement bu Sénégal te taxawaay boobu gis nañ ko tey ci gouverneur ak euh, préfet bépp question boo xam ne rek indi nañ ko fa euh, joxe nañ ci réponse boo xam ne loolu la ci xalifa bi doon xaar. dikk nañ it ci programme ziara bi nga xamante ne ci ñaari fan lay am. programme bi incha allah rabbi mu ngi commencé ajjuma balaa ñuy julli juma am na bayaan bu ñuy def bayaan mooy jël lenn ci thème bi waxtaanee ko. pèlerins yi nga xam ne ñu ngi ñëw ci ziyaara bi commencé xam programme bi fan la tàmbalee bu ñu jullee ba ca ngoon gi itam euh, gan ñu dem ci seen i daal noppalu bu ñu demee ba ci guddi ga vingt une heures incha allah am na benn forum bu mag boo xam ne fas nañ yéene def ko thème bi ñu ngi tànn éducation euh, loolu mooy programme ajjuma bi bu ñu ko waxtaanee bu ñu xëyee ci suba gi incha allah rabbi dinañu wàcce ay kaamil yu bari yu limu euh, bu ñu paree ci loolu incha allah rabbi xalifa bi dana santaane ñu def ñaan bu ñu ñaanee yeewi euh, nit ñi dugg ci jàkk ji julli timis bu ñu paree delluwaat ca dal ya noppalu ba guddi bu guddi jotee incha allah rabbi à partir de vingt deux heures gàmm gi dina commencé. gouverneur bu Kaffrine nag moom ci biir CRD bi moom wax na ne daal autorité centrale yi maanaam daal ministres yi ak ñoomin seen danañ teew bu baax a baax ci événement religieux bile. aja ma ngook ñu koy jaajëfal baax moom Alioune Kane ñaareelu pàcc bi a jotaay xibaar tàggat yaram lay doon ak Pape Mane borom jam city ak Doga maa ngi laa nuyu maa la fay le grand maire. ñu ngi tey département alhamdulilah. mbaa lépp waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. yàlla na sant yokk. amiin incha ñu bokk lépp. Algérie 2022 Sénégal RDC soit dañuy gagné ngir daal jàll quart de finale rek lu ko may ñu toog. waaw mu nekk nag match bu am solo kon gane Sénégal yi fas yéene ko football ni ki ëllëgoon dimanche 19h lu soxal ñetteelu bëccëg euh, ci euh, groupe B bi Sénégal wi kon ndam rek euh, la si soxla ngir nag mun a jàll ca quart de finale ga mu nekk nag match boo xam ne kon faaw nak ñoom tamit ñu racheté wu par rapport ak défaite bi nga xam ne amoon nañ ko seen diggante ak Ouganda waxtu wi ñoo ngi en direct ak Soxna Fall foofu ci Annaba soxna gannaaw ba la nuyoo. kon tey jëlee lan lañ mën a jàpp ci nouvelle yu yees euh, ci tanière bu Lion Loko yi. ginnaaw bu la fayee jàppal li ngay Sénégal yi ñaar ci ñaar tàggatu nañu ndax kenn ci ñoom di Raymond Jéeme Diouf dafa rek forfait gannaaw choc bu mu amoon suñu diggante ak Ouganda mu am luxation ci rek euh, épaule droite bi confirmé. également continuer aventure africaine bi kon gaynde Sénégal yi joxe rendez-vous ce dimanche à 19h contre la RDC jaajëf soxna Fall def liggéey ba am solo foofee sa Algérie moom moom daanaan la moom macha allah ñu waxtaanee Raymond Diémé moom dafa mel ni bokk ci compétition bi waaw Raymond Diémé Ndour nag soo xoolee dafa am ab naka blessure ngir euh, lu soxol épaule droite am ba tax na moom mi li nag du bokk ci bile euh, compétition muy ëllëg seen diggante ak ñi di waa RD moom sax dina toog lu soxol ñetti euh, semaine bu ñu sukkandikoo ci professeur Oumar Ndoye moom mi li nag moo yor kon lépp lu soxol wér gu yaram ci équipe bu local bi ñu teewlee kàddoom def benn choc bu violent mu dal ci mbagg bi mbagg bi simmeeku mbagg nag suy simmeeku euh, ñëpp xam nañ dañ koy delloo waaye su simmeeku ak suñ koy delloo dafa am euh, lu mu mën a yàq foofu parce euh, mbagg dafa di articulation bu am doole muscle yi yi ak yenn yeneen lésions yi def ci am day ndaw yu mu yàq yooyu biñ ko évaluer yóbbu ko rajo def évaluer ko xam ne ni mën a récupérer en moins de vingt et un jours trois semaines il faut trois semaines mu nekkoon kon professeur Oumar Ndoye doon dikkaat nag ci euh, forfait ko kii di Raymond Jémé Ndour jàppal ne euh, séance gu mujj ngir nag euh, soxol entraînement gaynde Sénégal yi kon tey jii lañ koy amale ci ngoon 17h30 lay doon euh, conférence de presse d'avant match yi ci kanam tuuti 11h30 kon euh, Sénégal moo njëkk amal nag euh, conférence bi ngir nag dikkaat ci jogante ëllëg yi bu ci noppee 12 h waa RD Congo lay doon ñetteelu bëccëg bi nag ngir soxal poule A bi tey jilee ci ngoon 16h Libye dina ci laale ak ñi di waa Éthiopie 19h Mozambique la ak Algérie mi nga xam ne qualifié ba ba noppi ngir nag lu soxal quart de finale yi démb ci groupe D bi Angola ak Mauritanie zéro but partout lañu def même score diggante Congo ak ñi di waa Niger soxal poule A bi. poule A e bi autant pour moi. voilà lan mooy njariñu fitness ñu waxtaanee ko tey ji